moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax wi télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce eh, Faram Facce yàlla ba lañ koy amal waxtu bi bu jotee ñu dikk ci ak yéen am mbégte bu yaatu eh, di ki waxtaan ak yéen ci tolluwaay réew mi ci wàllu politique eh, ci jamono ji nag nekk jamono campagne électoral ni ñu koy waxee 24 février di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ñu war a dem nag ci élection xëccoo bopp réew mi xëccoo bopp réew mi nag ci histoire Sénégal jàpp ni bii mooy fukk ak benneelu yoon bi ñu koy amal loolu nag nekk lu am solo ci Sénégal euh, ren ñu ciy dem ak juróomi candidat juróomi candidat yooyu xam ngeen ni Macky Sall ci la bokk. kii di euh, El Hadj Issa Sall bokk na ci Ousmane Sonko itam bokk na ci ma Madické Niang bokk ci sa Seck euh, moom itam bokk ci candidat yooyu moo waral sax tey ji ñuy dalal kenn ci ñooñu sa Seck yi Pape Diop lay wuyoo nekk jiite parti bi di bokk gis-gis ñu xam ko waaye itam bokk ci coalition Idi président 2019 euh, moom la ñuy recevoir euh, tey ci seen plateau Faram Facce ak télévision Futur Média maa ngi lay nuyu président Pape Diop. waa Pape Ngagne maa ngi lay fay. Euh, di nuyu waa réew mi yëpp. ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci biti di ñaan ñu dem ak jàmm ci élection yi ak jàmm génn ci ak jàmm. Mhm. fan yi passé gis naa ay violence yoo xam ni. wax dëgg yàlla Sénégal mérité wul loolu. ndaxte Sénégal dëkku jàmm la. dëkk la boo xam ni ñëpp ay mbokk lañu. Eh, li ñu séparé mooy gis-gis moo ñu séparé kon nag warul jafe war nañu ànd ñun ñëpp kenn ku ci nekk exprimer wu wax fi nga bëgg a jële jëmee réew mi bu ko defee eh, waa réew mi waxtu wi jotee ñooy tànn ki leen soob. Mm-hmm. Eh, li ma ci regretté rek mooy li ci am. ma profité ci occasion bi jaale njabootu ñi ci génn àddina ñëpp euh, ñi ci gaañu aussi ma leen di masawu tel que yi nga xam ni gaañu nañ ci mm-hmm. waaye réew dafa am nu muy doxe réew ñi ci kaw ñoo war a wane yoon bu baax mm-hmm. waaye buñ ne campagne électorale ki nga xam ni moo jiite réew mi créer milice. président yaa ngi bëgg dugg ci émission bi. tuddee dama waxoon nga nuyoo rek nga baal ma nga yem ci nuyoo ñu ah, avancé. s'il vous plaît voilà baal ma bala ngay <laughs> bala <laughs> dugg ci émission bi. Euh, man dama bëggoon euh, bala nga ci dugg xam naa di nga am occasion wu vraiment développer loolu parce que regret yooyu am na solo euh, ñu dikk ci mais bala ñu ciy ñëw man dafa am lu ma bëggoon dañ kumpa tuuti rek man ak sumay téléspectateur mooy bi nga xamee ni recalé nañu la ci parrainage bi naka nga ko dundee parce que itam Pape nekk président bokk gis-gis. Pape Diop nekkoon fi président assemblée nationale président sénat euh, Pape Diop naka nga dundee recalage boobu ak coono bi nga def ci parrainage bi euh, nan nga ko bi nga ko yëgee ban ban yëg nga ci nga ci am. yëg-yëg bu bu bu bu bu jullit jullit bu nattu tegoo ci kawam daf koy nangu. Ah, toll na foofu ci nattu kon. way euh, ndaxte man bi ma créé partie bi. 2012 mhm. laa njëkk a dem élection. Euh, bu jafe parce que c'était à un mois de des élections législatives malgré tout yàlla jàppale ñu. Mhm. parce que euh, défi yi ñu amoon mooy d'abord le défi euh, de la de la représentation mooy nga am liste ci 45 départements yi ñu am mhm. ko. Mhm. le défi de la campagne électorale aussi ñu ñu réussir ko ensuite le troisième défi c'était le défi du résultat ñu nekk troisième. derrière Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni moo Macky Sall moo ko jiite euh, derrière la PDS bi nga xam ni Abdoulaye Wade moo ko jiite amoon 12 euh, ans de présence à la tête de l'État mm-hmm. euh, kooku kon du loo loo xam ni lu ñàkk solo la mm-hmm. biñ ci génne ndax bokk bokk gis-gis boobu ak bokk gis-gis bi tey am bari na wute oui mais déglu rek ma wax la. booba ñi ngi amoon 143000 voix. Mm-hmm. en 2012. bokk gis-gis boobu ngay wax effectivement. tous les grands leaders laa ah. dem mhm. euh, ma continuer ak des sénégalais anonymes 2014 mhm. ma soobu ci élection locale yi mhm. gagné ci 29 maires yi am ci 246 000 voix kooku kay kon <laughs> am na progrès bu rëy rëy donc tey ñoo ñëpp génnoon nañ ci ñooñu nag laa àndaloon ba naga ni euh, man ma am présence partout au Sénégal parce que bi parrainage bi ñëwee dama convoqué commité directeur euh, ñu joxe ay directives responsable yëpp jël fiche yi dem à la base commencer collecter on a un parrainage parfait mais vous savez euh, bi ñu delloo les fiches la de parrainage parce que conseil constitutionnel daf ñu retourner ay fiche y tellement de manquement que bu ñu ko doon wax émission bi du jeex et puis c'est pas l'objet. c'est pas l'objet moo tax. important ma xam parce que aussi man bëgg naa xam. wax fa dëgg yàlla tuuti rek laa ciy wax président Pape Diop man loolu dama ko bëgg a dañ ko pour man man c'est important am nga ci am nga ci boo demee ba méngale ko ak nattu mooy am nga ci euh, am nga ci déception totale. pas déception totale parce que dama xam ni lii ñu doon wut am naa ko mais dañ ma ci dindi. noonu nga ko gisee force boobu laa ci amoon noonu noonu loolu moo am sax bu ma la expliquer tuuti rek président xam nga parrainage xam nga nag boo ci dugalee gëm yàlla aussi da nga ciy dem ba sës bu ci dugal ay eh, parce que dañ ma génne wala lële parce que mënuñu la génne di dugal sa morom argument boobu aussi dafay nekk argument bu oyof. mais c'est <laughs> vous ne xam nga jusqu'à présent. waaw les secrets du parrainage des résultats danañ ko mas a ami mais ce parrainage la a été manipulé ñu ñu bëgg dugal rek la ñu dugal. a été manipulé. président da ngay egg ba foofu kon. waaw a été manipulé may ma ma expliquer tuuti parce que xam nga danga def ay fiche waaw euh, joxe ko ñu ni la nga def euh, nga def benn clé def ci éléments yi nga am yëpp joxe ko. Mhm. loolu biñ ko defee ñun premier jour notre clé a été copiée dans le disque dur. Mhm. suñu suñu plénipotentiaire bi bi mu génnee il a fait une protestation ba presse bi jël ko mu ngi fi alors mais li ci am solo mooy li ñu ñu delloo si ñoom dañ ñu delloo yeneen fiche wane ni dama lay jox rek benn exemple ci samay sama cas mhm. par exemple Pape Ngagne Ndiaye numéro carte d'identité numéro carte delecteur numéro carte CEDEAO euh, circonscription électorale et ainsi de suite ma yiñ ma retourné ñu gis ci Ibrahima Diop à la place de Pape ngay Ndiaye. Mhm. man j'ai donné sax à des experts qui ont exploité toutes les fiches yoo xam ni recours malheureusement xooluñu recours. waaw mais mais président président yow ci sa ay doublon am nga ci ci li ma gis 17160. oui mais loolu loolu. ci sa ay régie am nga ci 32350. no non non non 16000. 16 ci ay régie régie. oui mais rejets yi dafa am différentes catégories. les mais rejets par exemple. yow mooy cas yu mel noonu. waaw loolu laa wax nii. si le fichier est manipulé. mais mais manipulé pour tout le monde. parce que même rejet yi gis nañ ko ak Benno Bokk Yaakaar. non non non non manipulé pour tout le monde aussi président. mais ça a été fait euh, euh, d'une manière pour pouvoir sélectionner les candidats voilà. amuloo ci benn argument technique de. parce que technique yi mooy fiche yi ñu ma fiche yu ñu la retourné nga bind Ibrahima Ndiaye ñu defal la Samba Ndiaye alors mais <laughs> Pape Ngagne kooku dafa nekk affaire boo xam ni bu bu bu doy waar la peut-être euh, mën naa la woon en privé dinaa la woon ay résultats nga xool ko gisal ko sa bopp parce que après le le le le le euh, le premier procès verbal j'ai attendu les résultats définitifs ma jox ko ay experts en informatique ñu laaj ma. sama fichier électronique. Mhm. ils ont fait la comparaison ak fiche fichier bi ñu jox ñu. Mhm. ñoom mhm. mais ils ont vu. dans beaucoup de départements et puis. Euh, le cas bi gars yi signalé nañ ci cas yu bëri daal jarul ma ci dellu si. vraiment c' est derrière nous. d' accord maintenant c' est ce qui importe c' président jàpp nañ ñu c' est derrière c' est derrière nous dëgg la waaye itam bu fekkente ne am nañu occasion recevoir la c' important ñu taxaw ci tuuti du tere ñu dem ci li nga xam ni itam moo tax euh, ñu war a waxtaan. Euh, waaye man bëggoon naa wax nga ma ko wax nga ma ni nattu la gëm nga ci yàlla man nag dama jàppoon ni da nga dem ba mu jeex waaye doo ci am loo ci regretté maanaam daal am nga ci. Euh, lu la naqari jàpp ni ci wàllu technique am na njuuj njaaj goo xam ni. am na ci mais xam nga loolu loolu wax nga ko te jàppoon naa ni. xam nga dem ba jeex bi foofu. man man je suis un légaliste dem ba jeex bi mooy def naa recours. Mhm. bi ñu joxee résultat définitif ñu ni waru leen ko woon déposer waxuñu ko bi ñu koy déposer de on devrait nous dire que waru leen ko déposer actuellement. ñu ni ñu maintenant ngeen ko war a déposé mais les recours n'ont pas été examinés kon ngay dem naa ba jeex. d'accord mais vraiment. <laughs> président loolu moo la moo la jàppoon mer ba nga wax ci wax ju wax ju ñu jàpp ni sax jaaduwul jëmale ko ci président de la république. Euh, donte dégg nañ non wax waxu waxu ñaari tur yooyu jëmale ko ko dégg nañ loolu. non franchement les les les les euh, Sénégal. Mhm. nit ñi dañuy jaxase. man j'aurais voulu. Mhm. bu ngeen déggatee rumeur. Mhm. mu am élément de preuve ngeen egg ba ci élément bi ba xam loolu laa wax walla loolu la journaliste bi traduire voilà exactement ce que j'ai dit dama ni un président de la République il est le président de tout le monde dafa war a nekk ci kaw mhm. waaye doo wàcc ci suuf di gaaruwaale di wax wax yu sew di def fu góor jigéen non j'ai pas dit ça Pape Ngagne itam les les bandes sonores sont là dama ni loolu borom ñaari tur yi ñoo ko moom. <laughs> président voilà exactement ce que j'ai dit. loolu lan ma ko wuteeleg li li ngeen ni moom la journaliste bi bind. président de la république nga ni waroo wàcc di di def loo xam ni borom ñaari tur ñoo ko. le mais yow itam war nga egg ba ci caniveau yi foofu ci wax. ci mel noonu egguma ci caniveau déet président dem bay tudd loolu yow itam. moo tax nga wax loolu. c'est tout. d'accord mais bu fekkente ni bëgg nga ko relever est-ce que yaakaar nga noon nga koy relever yow itam. jàpp ah loolu da nga ko delloo ginnaaw. il faut des mots chocs pour provoquer un déclic. ok mais moo choc yooyu bu ñu la ko retourné woon. dara parce que je ne le suis pas bu ñu ma ko retourné woon dara parce que je ne le suis d' accord voilà voilà président loolu fale aussi ñu taxaw ci man jàpp naa ni lu am solo la. Euh, mhm. tey nag yaa ngi dem ci Idrissa Seck jàppale ko fekki ko ci coalition mhm. euh, fekki boobu nga xam ni yaa ngi koy fekki Idrissa Seck am na ñu jàpp ni sax bettul ñu bëri ndax seen diggante lu yàgg la. ndax noonu la demee ay am na jamono ñu leen di bi nga xamee ni idée ngi am problème coow yi nga ci doon dégg ak moom loolu lan ngañ ci mën a indil ci loo xam ne lu yàgg la ci seen diggante wala coalition bi da nga gis ni mooy coalition gagnante bi moo tax nga dem fa wala lan la wala reconnaissance ou colère wala politique. non du loolu vous savez candidat yëpp ñëw nañ seet si ma sauf Issa Sall. parce que je n'avais pas le temps. ak Macky Sall. ñëpp seet si nañ ma bokk voilà. tout le monde. ba ci Macky sal ñëpp yónnee nañ ma nit. Ah ñëpp seet si nañ ma. j'ai fait le choix. ok Idrissa Seck. c'est pas parce que dama ko jàpp parce que loolu ngay wax. Mhm. dafa yàgg loolu seen diggante. loolu yàgg na. Mhm. mais. Euh, xam nga on a tenté de mettre en place une coalition ñun ak ñoom. Mhm. ci législative et ça n'a pas marché. tout à mhm. kon du loolu. Idriss Seck nag li tax ma jàppoon ko moment la booba nous étions dans l'opposition Ablaye Wade était absent du pays pendant longtemps mhm. alors je crois que période boobu moo ñu rapproché Parce que je l'ai vu se décarcasser comme un diable. Mmh. Et je, je, peux dire qu'on ne restait pas un jour sans se voir. Mhm. ma gis ko mu reyante ci reyante ci ba lay Wade di ñëw ñu ànd di xeex di xeex ba 2000 mhm. yàlla mhm. jox ko pouvoir bi ñu toog quelques années rek ay nit ñoo xam ni yàlla xam na ni mënuñu teg seen loxo ci kaamil ni woteel nañu premier tour Ablaye Wade ñëw monte complot fexe ba génne ko loolu injustice boobu rek la loolu te loolu loolu laa àndee woon ak moom mhm. te il arrivait des moments parce que man Ablaye Wade dafa mas a nekk sama sama waxuma dañu mas a de la de la politique nekk ay xarit problème bi bu mu amee mën naa wax ni bu mu éclaté nit ñi presque <laughs> du ma fi cité turu nit mais nit ñi daal dañu yàq diggante ba mu egg foo xam ne nag. ñaar egg foo xam ni vraiment dépassé na. ba yi ci am yëpp am ci. d'accord bon mais terewul moom mu jaar ci yoonam. man ma continuer sama yoon ànd ak Ablaye Wade 2012 bu li ngeen di wax am amoon <laughs> damay ànd ak Ablaye ñu fusionné def benn parti mais c'est pas mais ci parrainage bi j'ai vu que man. li ma bëggoon lu ci bari biñ ci waxtaanee d'accord na ci d'accord na ci. ci programme ou ci parrainage programme. ci parrainage ci ci ci programme. excusez-moi voilà programme mm-hmm. tel que euh, sur les réformes euh, institutionnelles. Mm-hmm. Euh, sur beaucoup de choses sur sur le programme agricole. Mm-hmm. et sur beaucoup d'autres points. il y a une convergence de vues entre nous. donc looloo tax ma jàppale ko. Euh, te am naa yaakaar ni euh, li ma ko jàppalee euh, lu baax la parce que je veux que sama réew jóge ci situation bi mu nekk dem ci beneen. d'accord président wax nga ma li tax nga jàppale sa Seck ndax mën nga ma wax lu tax jàppale woo Macky Sall parce que ne nga ci candidat yi la set si moom ci la bokk. oui mais xam nga man du ma nit koo xam ni sept ans durant. man ni président Macky Sall li mu fi def baaxul. di wax argument yi ma am. parce que bu ma waxee argument keneen mën a wax argument. nit ñi may seetaan nag ñooy gëm. alors subitement ma ni dama bëgg a jàkkaarloog moom pour daaneel ko. yàlla def loolu amul. ma ni moom lay àndal mais kooku wax dëgg yàlla. mais ndax loolu ndax loolu ndax loolu rek la parce que man dama gis. Euh, ci ci sa digganteeg euh, Macky Sall mu mel ni dafa am lu ci lu ci personnel lu ñagas ñagas. parce que à chaque fois ay rencontre yoo xam da la ciy convier doo ci teew pourquoi proximité bi nga bañ ko durant sept ans yooyu nga xam ni wax nga ko am na leneen lu nekk ci ginnaaw wala. dara nekku ci boo ko ko laajoon mu wax la dara nekku ci de particulier amul dara lu ci nekk xam nga li ngeen di wax rencontre c'est une seule fois. je l'ai expliqué à quelqu'un de son entourage, une personne très proche de lui. C'est euh, au moment où il voulait me décorer. Mm J'étais en tournée à Kédougou. Ils m'ont appelé le vendredi, le grand chancelier, pour me dire que lundi, il y a une décoration à te remettre par le chef de l'État. Maniko, ah, monsieur le grand chan chancelier, ça ne sera pas facile je suis très loin de Dakar je verrai si je peux couper et revenir venir à Dakar et retourner à Kédougou finalement j'ai pas pu le faire mm -hmm. alors amuloon beneen date pour mën a jël jël jël ah, décoration bi non j'en viens ok décoration bi ce que les textes de la chancellerie chancellerie disent mooy si vous devez recevoir une décoration si mhm. vous êtes empêché vous pouvez vous faire représenter par quelqu'un d'autre mhm. dans le cas contraire si cela n'est pas fait mën nañ la ko yóbbul le chancelier moo koy jox motard ak une lettre indil la ko sa kër mhm. mais jusqu'à présent indiluñ ma ko alors que c'est les textes xam nga dañu nekk ak ñoo xam ni euh, dañuy enfreindre Euh, les les les les lois de ce pays là mais ndax laaj nga ko ndax laaj nga ko. nga ñëwee ah, du man maa ko war a laaj ñoom ñoom ma ko war a indi ñoom ko war a. li mais président war nga ko laaj aussi bul ni ñoom ñoo ma ko war a indil. non non c'est ça c'est bu taxi loolu. te nga xam ni dañ la ko war a indil indiluñ la ko. ma ko laajte. Ah, parce que da nga ko bëggul ñoo ko war indi. non parce que da ko bëggul président buñ ma jël buñ ko indi ma jël. non président yooyu tam nañu dem ci ci ci. non du ma bañ décoration sama réew. surtout que dama ko dama ko mérité parce que fi ma jaar nekk maire de Dakar président de l'Assemblée nationale pendant une législature nekk maire euh, maire de Dakar aussi pendant une mandature waaw wax yàlla kooku ba ma ko jël siwul sax dès le waroon nañ ko indi sama kër le mardi du mois bu ko sama jabar day jël déchargé wala sama doom wala ku ko mën di jël. déchargé président décoration bi ni nga waxee ni da nga ko mérité en tant que ancien maire de Dakar ancien président assemblée nationale ancien président sénat te jaralu la nga woote chancellerie ne leen jox leen ma suma suma décoration. léegi loolu problème mu égo la ci yow wala problème mu lan la. du problème mu égo parce que ça devrait se faire autrement. et man dama bëgg lépp ñu koy teg ci yoon voilà. parce ah, que décoration bi c'est pas une fin en soi. d'accord ma am ko ak ma bañ ko am c'est la même chose pour moi. d'accord d'accord président wax nga ma ñaari ponk benn bi sax man maa ko abordé ak yow laaj la ndax lu personnel la seen diggante joxe nga ci exemple boobu mais au-delà de opposition bi nga ko opposé euh, loolu rek doy na ci nga bañ mu convaincre la par ni nga def pour jël sa programme won ko Idrissa ngeen xool jàppaloo ni boo ko defoon ak sa programme ngeen négocier xool mën na am changement wala leneen wala da nga leen egg foofu. non mais xam nga c'est c'est c'est aller trop ñoom. seen seen ànd dañuy bëgg rek nga ñëw euh, ñu ki xam nga nii benn parti demu fa naan ko sama programme lii la foog nga def ko si si bu leen. ndax seen mais yow nga def ko yooyu mënul mais président yow nga def ko kenn def ko mais nga xam nga loolu man du ma nax sama bopp. ok parce que qu'il ne le fera pas. d'accord ok je n'essaierai pas. Mhm. d'accord léegi wax nga léegi ci diggante Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade diggante bu yàqu la. bu bu hmm. yàqu bu bu hmm, yàqu bu la de. bu yàqu la diggante Macky Sall ak ak ak Abdoulaye gën a yàqu téeméer yoon te am na ñu koy jéem a defar. waaw euh, mais diggante bi nga xam ne yow yaa ngi koy jéem a defar yow. xam naa ni defaroo bu idée bu waat yow booy am booy defar diggante Idrissa ak Wade lay doon. non xam nga man bu ma mënoon a defar. waaw yëpp lay defar parce que jàmmoo moo gën Macky Sall jubóog Abdoulaye Wade du ko yàqal dara. Hmm. xeex ak Abdoulaye Wade moom lay wàññi. parce que wolof yi dañuy wax ku am caq mhm. ak du xeex ak ku amul cax. Mhm. te nag lu mu am Ablaye Wade la te moo nekk xale. waroon na jéem man en tout cas bu ma nekkoon place am noonu lay def. Mhm. parce que euh, rappelez-vous Ablaye Wade en 2012 bi ñu perdre pouvoir bi dañuy waxtaan. ci élection yi mu nu ma doo ko jiite mhm. ma ni ko bu ma ko jiitewul kon du ma dugg ci liste PDS mhm. parce que booba nag maa ko waroon jiite aussi man pour man mhm. maa ko waroon a jiite alors mais ñu ma dem toog alors euh, li li déclenché affaire bi sax presque ñoom ci ñoom la jógee parce que ba ma demee toog je vous assure que j'ai passé quelques jours yoo xam ni Euh, du ma nelaw bu guddee mais ma jékki-jékki rek benn jour dans la presse te kenn yëgul woon booba waxtaan bi mooy waxtaan ak moom ñu titre ma un grand titre pour dire euh, que le titre de, du journal de l'époque c'était liste parallèle de Pape Diop échappé solitaire de Abdoulaye Baldé alors c'est là où tous les responsables m'ont appelé pour me dire est-ce que c'est vrai ou pas je tout cas moi moi je ne serai pas dans la liste du PDS bi ma ko waxee nag ci la ñëpp ñëwee ànd ak man man woowuma kenn mhm. kenn du taxaw ni la maa woo pour mu ñëw ànd ak amul Seynabou Wade a fait un témoignage d'ailleurs te àndul ak man actuellement mhm. elle a dit man jige woon naa Pape Diop trop mais woo woowuma mhm. je crois Moussa Sy aussi l'a dit une fois ñëpp dañ ko dégg rek daal di ñëw euh, alors li ci am yëpp ba mu ci amee aussi man j'ai gardé ma sérénité. Mhm. parce que euh, Ablaye Wade sama kilifa la comme ni mu nekk kilifa Macky Sall. am na droit sax mais ba tey bokkul nag bul bul yi ngay méngale bokkul Macky ah, aussi président de la république la président de la république aussi président bu amee kilifa tam kilifa am na kilifa am na yow yow mën nga waaw d'accord je te concède ça <laughs> en tout cas man bokk man man waaw bi loolu amee. Mhm. comme je considère que sama kilifa la. fu nekk jaar nañ fa bu ma xamee buñ ma xamee ci politique moom moo tax. Mhm. bu ma amee dara ci politique moom moo tax. toog man maa war a def les pas ñu juboo kon amoo ci benn mérite lépp moom moo tax. boo amee boo loo am ci politique amoo ci benn mérite. oui mais yàlla lu mu def rek dafa am ci kum ko jaar. waaw mais mérite bi aussi dafa am solo. oui mais d'accord mérite aussi parce que yaa ngi nii ni ma yow yaa am na foo mérit bi liste liste bi ci Dakar. xam nga boo ko demee ba wax ko kay war nga. xam ni kon am nga bi fu muy jógee. Uh-huh. mais dooni rek. te la nga taxawaay ba nga am ci institution boobu foofu la mérite bi di jógee. mais am na fu ko yàlla jaarale. président bu dul woon moom du ma nekk maire de Dakar. nga xam loolu kon bu la nee bul dem ci liste. mais bul bul bul bul dëgëranteeg moom. ah parce que boobu. soo demee ba koy def kay yaa ngi def loo xam ne waruloo ko def. non non non non non non non non non non non xam nga lu nit def rek man boog lu ma def am na lu tax euh, bi loolu amee euh, pour man mhm. euh, luy defar parti bi la luy defar ñun suñu avenir la mooy parce booba xam naa ni man nit ñi ñëpp am nañu euh, kóolute ci man loolu moo taxoon pour remobiliser le parti ñu redémarrer parce que yàlla bu la xañee tey ëllëg mu jox la te loolu laa ko wax d'accord mais du woon pour jiite jiite rek taxul woon bu amoon keneen koo xam ni mhm. man estimé naa ni li ma mën a def mën na ko def mhm. ah kon dama koy bàyyee moom mais dama ko wax ni ko koo fi mën di jël gënuma xam parti bi koo mën a jël gënuma xam Sénégal koo mën a jël gënuma am présence ci famille religieuse tout à fait donc loolu raison yooyu rek mhm. war na tax man ma jiite d'accord d'accord d'accord mais xam nga foofu aussi lu lu lu ñu mën a taxaw la donte bëgguma ñu taxaw ci trop parce que histoire la ci PDS ak yow euh, te vrai war nañu évoluer ci question yi mais da nga aborder rek loo xam ni dama ciy waroon taxaw donte leeral nga ko parce que ki nga xam ni da ni loo am ci politique moom la. kooku boo xëccoo ak moom def nga la warul def. léegi loolu dama bëgg ñu ñu ñu avancer ci leneen mooy danga wax ñaari nit da nga ni li Abdoulaye Wade joteeg Macky Sall gën a graaw fuuf li mu joteeg Idrissa Seck loolu yaa ko wax. loolu mhm. fan nga ko teg président Pape mhm. Diop. Macky doit tout à maître mu jàpp doomam tëj. loolu argument boobu la. foofu rek laa ko teg. attends mais Pape président Pape Diop yow loolu ngay wax aussi Sénégal di la déglu. justice ñu am réew Sénégal am am am justice. nga ni mu defal ko lépp mu jàpp doomam tëj ci <laughs> kaso noonu nga koy argumenté. on sait tout ça comment ça s' est itam Pape Ngagne Sénégalais ñoo ñuy seetaan. Sénégalais yi ñoo ñuy seetaan mais Sénégalais yi gisuñu benn yoon Macky Sall jàpp Karim Wade yóbbu ci kaso bi tëj. Sénégalais aussi ñoo ñuy seetaan président Pape Diop. <laughs> vraiment sénégalais ñu seetaan nañ ñu àtte ci question boobu nañ dem ci élection yi moo ëpp fi mu ci la ñu nekk parce que ci coalition bi la ñu nekk a ngi nekk di xool naka ngeen di yéen a ngi xool yéen ngi xool yéen xool nan ngeen mën a def ba Abdoulaye Wade jàppale Idrissa Seck yéen ngi ci ci loolu yaakaar ngeen dina yomb président Pape Diop waa xam nga politique dañuy faral di wax nii du ëmb mhm. dafay xëy rek wasin impossible n'est pas politique mhm. euh, Ablaye Wade euh, peut-être mën naa ko classer comme actuellement l'homme politique le plus averti mm -hmm. Et il analyse les différentes situations te te te yàlla may na ko bopp xam na fi mu bëgg jëm xam na actuellement aussi fan la war a mën a jaar ba egg foofu pour man ci Idrissa Seck rek la parce que tout son combat aujourd'hui c'est contre Macky Sall alors donc pour man tout le combat de Wade c'est contre Macky Sall ah bien sûr mais mais ça c'est c'est c'est ce n'est pas un secret de Polichinelle. ba ci ba ci li mu yëkkati comme boycott c'est contre euh, lu contre contre Macky Sall. oui parce que pour moom pour moom. waaw d'après ce qu'il a dit d'après ce qu'il continue de dire mais il a évolué pour moom il ne sert à rien d'aller à cette présidentielle parce que Macky a déjà fabriqué ses résultats voilà son son son raisonnement. Mm-hmm. mais Ablaye Wade bu la waxee dara. bul fiyewu ci loolu rek de hmm. lu mu wax rek am na lu tax très intelligent hmm. Macky Sall xam na ko hmm. donc mange j'ai bon espoir que les jours ou semaines à venir avant le 24 waaw euh, vous verrez sa position évoluer d'une manière vraiment d'ici exponentielle d'ici kañ d'ici le 24 d'ici le 24 oui. d'accord inchallah euh, président nga baal ma ñu retourner tuuti rek après ñu ñëwaat ci li may wax nii euh, bëggoon naa xam tey boo nekkoon président de la république ak lu doomu Abdoulaye Wade def doo ko tëj ci kaso bi non juste damay laaj rek dem ak boo nekkoon président de la république tey ak lu doomu Abdoulaye Wade def doo ko tëj ci kaso j'ai pas dit ça xam nga xam nga il faut que ñu waxtaan. waaw ce que ce qu'on a reproché à Karim Wade. Mhm. il s'est passé des choses mille fois plus graves pendant le magistère de Macky Sall. déet waay mille fois plus grave. mille fois mhm. d'abord l'aéroport de Diass. le coût était estimé à 400 milliards. Mmh. Macky Sall est arrivé, il a dit qu'il y a de la surfacturation. Mmh. Arrêtez travaux yi. Après, pourtant, il y a eu des avenants ba aéroport presque 700 et quelques milliards. L'affaire du pétrole. Il faut mu leer. Le jeune Ablaye Sylla là qui est multimilliardaire. Mmh. mais qui, qui est sorti de nulle part. Mmh. Et beaucoup d'autres jeunes qui gravitent autour du pouvoir, nous les connaissons. Alors, l'histoire dont, dont on a parlé de Mame Mbaye Niang, mmh. jusqu'à présent, aucune réaction. Il y a des choses qui se sont passées. Alors, loolu euh, euh réveiller euh, la cour de l'enrichissement illicite uniquement pour traquer une personne. baal ma nga olof nga baal ma Pape président. waaw ma ni. waaw loolu def benn benn cours boo xam ni. Mhm. uniquement pour jàpp ci benn nit. mais am na ñeneen ñu jàppoon léegi ñu ngi ci moom. ñu xam ni épinglé woon nañ leen. président xam nga ci wax ji yëpp yow da nga cee dugal Karim Wade. danga ko dugal da nga ko dugal ci problème bi dugal ko ci mooy. Ah. Euh, am na lu mu def mais am na ñu def lu gën a graaw. waaye non non dama bëgg a wax non loolu loolu loolu remarque boobu mu ngi ci. no non dama wax. am na lu mu def bu fekkoon ni c'est quelque chose de sérieux. oui. kon ñooñu léegi dinañ am sor bi euh, Karim Wade am mais amuñu ko. d'accord moom rek moo ko ci am. lan moo ci seen programme ci justice bu ñu egg ba tey ji bu ngeen yoroon réew. justement mhm. man bëgg naa. Mhm. prochain président bi. Euh, mu bañ a présider conseil supérieur de la magistrature le ministre de la justice aussi ne sera pas membre mm -hmm. on désignera ñu wax ni président cour suprême mi ngi ci seen programme oui mi ngi sama programme d'accord président cour suprême Idrissa intégré na ko ci programme oui président cour suprême ok euh, président euh, euh, cour suprême ak euh, euh, ak euh, conseil constitutionnel ñoom ñëpp dañu nekk membre d'office mm -hmm. tous les autres membres seront élus par leur père man demoon naa ba proposer sax bon des magistrats m'ont conseillé de de, de de peut-être réfléchir sur sax ñu dugal benn peut-être un professeur de droit de l'université boo xam moom itam dañ koy élire par ses pairs de l'université mmh. Mmh. ak peut-être un boo xam ni moom itam dañ koy élire mmh. parce que carrière magistrat yi foofu lañ koy décider. Mm-hmm. bu ko defee indépendance bi ñu bëgg dëgg dëgg dëgg parce que magistrat yi danañ xam ni seen carrière président géretu ko. Mm-hmm. yaakaar naa ni. su ko defee ñu mën am seen liberté. seen liberté. Mm-hmm. dina dox. mais loolu ci justice bi buñ ko defee mais corps de contrôle yi également. ñu autonomiser leen. regrouper leen en un grand corps. mu am ay moyen humains euh, matériels et et et et financiers. nga xam ni lépp loo xam ni état bi moo ko moom ñoom bu ñuy jóg di contrôler kenn du wax demal seeti kii wala demal seeti kële. ensuite les collectivité locale d'accord am na collectivité locales yoo xam ni depuis ba ñu créer décentralisé décentralisation ba tey kenn mm-hmm. mësu leen a bu ko defee sur un mandat normalement cinq ans bu nekk. dina am une inspection dans chaque collectivité locale du Sénégal. Ah, du yomb nag plus de 500 et quelques collectivités locales. oui oui mais ça dépend il faut donner les moyens il faut donner à ce corps mhm. bu fekkee ni bëgg nañu taxawal jub. Mhm. alors buñ ko defee euh, cour boobu ak euh, euh, institution boobu. Mhm. mën na am saisine directe du procureur. amatul jël rapport rek denc bu ñu estimé kii. jalgati daa alal réew mi moom directement day saisir la justice réew mi tant que defuñu loolu du dox. d'accord te loolu moom mooy seen programme. ah loolu la une fois que ngeen nekk. loolu la ñuy def. ngeen jël réew mi noonu ngeen koy. doxalee loolu lañ koy doxale d'accord kon leneen lu ngeen def. wax waxet lay doon. waaye ba booba. ba ba ñu egg ci. yàlla nañu yàlla may rek ñu jël ndax dina yomb ci yéen ak candidat bi ngeen jàkkaar lool wax na ko rek bi ngeen di dem Casamance jël fara Farafeñe bi euh, mu nekk ay ati at loolu nekkoon doléance su Sénégal ak Gambie ndax doyul woon rek ci résultat ci ci bilan yéen sax ngeen votel Macky Sall. est-ce que bagu Farafeñe bi rek doyul xam nga daal wax dëgg yàlla yéen journaliste yi euh, man si ça vient de vous. daf may xaw a parce que yéen xam ngeen ni pose première pierre bi. defoon nañ ko du temps de Wade et de Jammeh Doudou Diop Sala l'ancien ambassadeur du Sénégal moo doon diriger bi ñuy def bi ñuy commencer euh, comment dirais-je le pont en 2012 quand Macky Sall venait d'être élu président deux mois après moi je suis passé là-bas le premier pilier était déjà là président loolu ngay wax nii yow itam. au moins bul nii liste bul wax nii defu ci dara waxuma defu ci dara li may wax leer na. waaw Pape Ngañ. Hmm. boo ñëwee man ma def samay plan recherche financement pour tabax yow nga ñëw surveiller tabax bi wax dëgg yàlla peut-être surveiller nga mais nag. am na leneen lu nañ ko wax. <laughs> surveillance nga ko bëgg jàppe ko ah oui c'est de la surveillance parce que tout était là le financement tout les études techniques réalisées et tout quand quand moo tax quand vois mais c'est ça loolu mooy état continuité de l'état mais nag da ngay fàttali fu mu jógee. Mhm. daf ci baax tuuti. d'accord daf ci baax au moins rendre hommage au président Diamé et, wadd Wade qui avait procédé eux te te te moox la leen. rendre hommage président Diamé. oui bien sûr parce que bu dee pont bi moom moom ci la bokk bien que bien que bien que. Euh, bu fekkoon ni yëf yi jaar na yoon jàmmee bu fekkoon ni joué na le mhm. kon Macky Sall sax bi mu ñëw 2012 dina fekk pont bi ñu tabax ko bu yàgg. mais pendant au moins 6 ans 7 ans. comme xam nga ni jàmme joué wul le xam nga ni jàmme joué wul le mais bokk na ci mujj na am accord ba lépp am financement yi ñëw ba yëpp taxaw. mais li mu def après ça ne ça ne ça ne y' aucun lien avec le pont. accord. président Pape Diop doo ma wax ni premier pierre u terre bi donc président Wade moo ko teg xanaa. ah non jamais. ah terre bi moom di nga ko apprécier ko waaw mais je vais te dire une chose. terre bi nga xam ni daanaka. je vais te je vais te information de taille. terre bi xam nga bu muy jaar bu muy traverser autoroute bi. Mhm. Hmm? Mhm. xam nga la réserve était là. Mhm. xam xam nga il ñu def benn travaux. voilà donc ça veut dire que c'était prévu. <laughs> c'est extraordinaire. oui ah, président loolu moom c'est extraordinaire. mais gisoo ko terre bi fu muy jaar. lan lan la lañ fa prévoir woon train lañ fa prévoir woon wala TR euh, lañ fa prévoir wax ma ma xam. waay euh, ou, train en tout cas il y un moyen de transport pour aller à l'aéroport autre ci ci ci euh, raay. je vais te dire ci raay ci raay te dire xam nga. il y a quelqu'un il est là aussi Macky est surveillant la toujours aussi pour terre bi. non ce terre là doit écoutez <laughs> ce terre là c'est lui qui l'a mais avec combien de milliards de Sénégalais 800 milliards alors que wax naa la ko fii il y mois ou 8 personne ne l'avait dit auparavant au Nigéria le Nigéria était en train de faire un TGV sur 183 kilomètres. à quatre cent et quelques milliards. est environnement yi benn la. mais environnement yi ñu koy defee est-ce que benn la. mais benn <laughs> ah, ah, mais président aussi loolu am na solo environnement bi ñu koy defee xam nga ni mën na wuute. <laughs> mën na définir aussi montant bi. y' ya y' a aucune différence xam nga bu dee autoroute euh, ñee ñu ko ëppale fu muy traversé ay autoroute ñoo ko ëppale. Mhm. Mhm. Euh, le Sénégal est plat. Mhm. est un pays plat. peut-être bu ñu dee wax sax fee c'est un pays un peu accidenté donc foofu la gën a difficile. Mm-hmm. alors donc vraiment kon bu ñu ñu rey ci terre boo xam ni vraiment pour man euh, li ñu ci def jaaduwul. jaaduwul. d'accord jaaduwul président mën naa na mën naa nangoo peut-être xëy na ci yow lenn loo xam ni jaadu na parce que bu fekkente ni pont bi ne nga expliqué nga ko terre bi. wax boo demee man kay li ma lay wax sénégalais bu bëgg. fi terre bi war a jaar ci autoroute bi te autoroute boobu Macky Sall fi la ko fekk bu demee xool ko buñ ko prévoirul woon du fa am. d'accord oui am. d'accord euh, yéen a ngi ci campagne bi ñu ngi ciy dégg ay violence nag violence bu mujj bi Tambacounda la junjoon nga ko léegi ci bi ngay nuyoo mu nekk loo xam ni lu lu lu doy waar la. Mm. Euh, léegi dégg nga décision bi nga xam ni itam gouvernement bi jël na ko ci. Euh, ci fexe ba yéen ñëpp ci candidature yi kenn ku ci nekk ñu aar la ci karange police gendarme ñu jagleel la ko euh, loolu moom xanaa di ko apprécier nga xam ni dootoo jël sa alal di wut kenn koo xam daf lay aar. waaw d'abord ma bëgg wax tuuti ci violence yi di ko regretter ndaxte loolu baaxul ñun ñëpp benn lañu euh, léegi élection yi jàll bu jàllee ku gañe gañe dañuy àndaat mm-hmm. kon matu ko. parce que en fin de compte yàlla mooy fal ki war a falu yàlla xam na ko mhm. ñun ñoo ko xamul mais yàlla war xam na ko waaye loo gis tam dafa am lu ko waral mhm. parce que avant élection bi ah mais man Macky Sall jaaxal na ma président de la République am euh, les forces de défense et de sécurité à sa disposition dem di créer milice ba pare di ko wax les marrons di feu milice la pour yow loolu. ah c'est tout mais mais PAM ngañ. franchement mais mais attends mais damay. damay ne vois pas le ni lii du soleil nag. waaw mais milice milice mais dajare 500 personnes. mais milice waaw habillé leen kii laa de gros bras. mais c'est une milice c'est ça une milice alors bu leen dajale ba pare moom ci boppam dans une vidéo marron du feu di ko di ko vanter mais. ñeneen ñi dañu daal di xaw a tiit boobu nag aussi nekkul président bu dee vidéo boobu ngay wax c'est bien avant muy nekk président de la république non bi bi ñu defee les marrons du feu la bi ñu leen taxawalee boobu laa la wax bi président <laughs> Macky Sall wax man maa lay wax loolu aussi loolu c'est bien avant que moom muy nekk président de la république mais quels sont les marrons du feu là quels sont les marrons du feu les marrons du feu a créé tout dernièrement là naan c'est les jeunes de Pikine qui ont qui se sont regroupés quand même mais mais c'est xam nga kilifa mooy joxe toujours bon exemple fu ñu war a jaar. pour yow responsable violence bi moom la. non violence bi. ba ci ay bakkan di ci faat falal mënuma mënuma wax responsabilité kii la wala kii la waaye dama ni un président du joxe un mauvais exemple même ku dul président kilifa du joxe mauvais exemple. Mhm. waaw du joxe mauvais exemple man du ma ko def. mais discours bi nga xam ni wax na ko ci apaisement ci violence bi du du du du argument. nañu wax leneen mais loolu itam wax nañ loo xam ne luy apaiser la luy dalal xel yi la. ci loolu loolu loolu loolu c'est tout à fait normal même ñun ñu dul euh, président Nigeria ci suñu tournée yi ñu ngi ciy wax. Mhm. Euh, nous avons fait appel au calme nit ñi def dans la sérénité leur campagne ba ñu heurté wu euh, je vais même te dire une chose ma révéler la benn affaire fii nous nous avons perdu deux jours. Mhm. à Kaffrine parce que Macky Sall était à Tamba. te bëgguñu dem muy am accrochage. waaw mhm. Thierno Bocoum wax na ko fii. alors Thierno Bocoum. deux jours wax na ko fi deux jours. alors mhm. bi mu demee ñu door a dem tàmba mhm. alors bi mu nekkee foofu ñu dem euh, Kolda ñu ni mi ngi ñu ñu temporiser def fene alors le dernier euh, dañu waroon jaar. Euh, Carrefour Diaroume def Medina Wandifa dem dem euh, kii. waaw mais léegi léegi léegi argument bi nga joxe dama lay wax rek mais mais est-ce que du da ngeen bañ a ridiculiser aussi seen bopp. ci ci ci ci manifestation am ngeen bañ a dem ñu naan ñee ngi nii ridiculiser seen seen. ça veut dire quoi non c'est-à-dire par exemple ngeen dem du ngeen mobiliser seen mobilisation. mais yow gis nga li ñuy mobiliser toi aussi. non c'est-à-dire bu ngeen ko mënul fekki ci terrain bi est-ce que du da ngeen ragal ridiculiser seen bopp devant moom. non buñ fa demee itam li war a ànd ak ñun li ànd ak ñun day ànd ak ñun je vais te dire une chose. ok. xam nga dans une campagne électorale le baromètre mm c'est pas les personnes qu'on rassemble ça c'est trop facile c'est le passage dans les villages et villes les personnes qui ne sont pas dans les chapelles politiques seen réaction mooy baromètre. réaction mooy lan nga bëgg wax foofu donc loolu moo tax ngeen initier initier marche orange bi. approbation au lieu de meeting ak yooyu. on a fait des meetings approbation bi ñi approuvé. mais c'est important moi j'ai fait de la politique depuis longtemps Pape xam naa xam naa nit ñi seen réaction d'accord alors je te dire quelque chose mhm. aujourd'hui sama jabar mi ngi may seetaan 2011 mhm. dama am fu ma ànd ak Ablaye Wade man bu may circuler damay seet ak président toujours maa ngi xool réaction nit ñi ma gis nit ñu bari maa ngi ko commencé gis caaro yi bu ñu jaalee ñu naan nii hmm. ma gis ñu bari fu ñu jaar indifférent dinañ génn mais duñ leen indifférent mhm. quand je suis rentré j'ai dit à mon épouse daanu nañu hmm? demal nga wuti passeport ordinaire ma mu ne ma waa wut man du wut passeport ordinaire ma dem wuti man passeport ordinaire wut sama visa France. ah bon 2011. laaj waaw mais <laughs> mi ngi may seetaan 2011 <laughs> alors euh, waxu kilifa dafa am solo de alors bi bi bi bi. 2000 lan lan nga bëgg wax ci waxu kilifa dafa am solo. 2012 Balma lan nga bëgg wax ci waxu. moom laa lay wax 2012 ñu ñàkk pouvoir bi. Mhm. Euh, ñu déposé suñu passeport diplomatique parce que dafa jeexoon ñu bloqué ko rekk ñu waroon voyage <laughs> ma ni ko waxu kilifa bu la waxee rek defal bul xam lu tax ma daal dem bàyyi ko c'est c'est vrai xam nga baromètre homme politique bu mënul xam baromètre vraiment c'est pas la peine. Euh, te du nit ñuy rassembler parce que rassembler nit. Euh, par exemple dama lay. mais loolu loolu di nga ko baal pouvoir bi le fait que ñu war la renouveler yow sa passeport en tant que. fi nga jeex na jeex na xam naa ni incompréhension la xam nga ñëpp xamuñu lan mooy valeur république état. Mhm. xamuñu ko. loolu rek la. d'accord je me dis que xamuñu bis bu ñu xamee dinañ dinañ du ñu def loolu li nga wax ci euh, li Macky Sall jël décision pour euh, du moins ministre de l'intérieur. Mhm. c'est une bonne chose c'est vrai. mais moi je pense que euh, Guinée xam nga le Sénégal n'est pas comparable à la Guinée. Mmh. Guinée depuis toujours les candidats sont assistés par la police et la gendarmerie. Mmh. bu Guinée tollee foofu Sénégal tollu fii wax dëgg yàlla. daf may metti mais li li ci jaaxal nit ñi mooy man maa dégg Idrissa Seck mu wax ni lu bëri ci force de l'ordre yi aussi nañ def attention parce que dañ leen di topp espionnage ak yooyu mais loolu est-ce que dina yombal liggéeyu force de l'ordre yi ci seen wet bu ngeen demee ba du ngeen leen ñeme te ñoom ñu yor seen kaaraange. non je crois que man euh, loolu force de l'ordre yi c'est de c'est des républicains je crois que euh, peut-être autorité bi nag moo war a nekk ci kaw. bu leen autorité bi ne la ne la dem de leen ma jox ay fiche aussi ñu joxe ko parce que seen liggéey la te itam loolu mooy yoon. mais autorité bi nag moo war a mat. ba nga xam ni sécurité candidat bi rek. lay lay lay léegi ci ci ba fii gis nga ni autorité bi ci processus électoral bi ak mat am na ci. ah mais les critiques yi ñu ci waroon def yëpp def nañ ko ci euh, kooku moom dépassé nañ ko léegi dem wote ji rek moo des. ok euh, dem wote ji moom moo des. dégg nga ki nga xam ni mooy Abdoulaye Wade wax ni nañu dem lakk bulletin yi nañu dem def nangam nangam euh, loolu est-ce yaakaar nga dina yombal dem voté ji ni nga xamee Abdoulaye Wade mais wax dëgg yàlla defaat na beneen déclaration évolué na bu baax a baax ci loolu mhm. euh, position boobu dina ci jóge completement dina wa woo woote nit ñi ñu dem voté ji mhm. jóge na ci parce que déjà man dinaa ko seeti mais gis naa léegi Bougane ci guddi demoon na fa bi mu génnee dafa wax ni euh, jour yi di ñëw Ablaye Wade dina def déclaration euh, parce que changé na bu baax ci li mu doon wax. donc man demaguma fa parce que léegi laa ñëw. d'accord mais dinaa dem seeti ko. président yow euh, Ablaye Wade fekk nga ko France. waaw ba nga ko fekkee France man bi nga ñëwee act bi nga njëkk a posé mooy annoncer sa soutien à Idriss. non fekkoon na ma soutenir ko door a dem. Mhm. parce que wax naa ko ko xam nga Ablaye Wade. man ak PDS ay partenaire la ñu bu bëggee def dara foog mu woo ma expliquer ma ko mais euh, à la différence de beaucoup d'autres man su ma su ma su ma su ma waxee dara dama koy wax lu ma ci xalaat. ay partenaire nga demoon nga ba mu ba mën nekk plan B bi bu Karim nekkul candidat. <laughs> loolu de je ne le dis pas. waaw ah, damay damay damay man maa lay laaj ay ngeen mais demoon nga ci ba mënoon a nekk plan B wu Abdoulaye Wade ci candidat yi maanaam bu fekkoon ni jàll nga bi. ay partenaire lañu. Ah, mais pas mais damay président dama lay laaj ba ba léegi da nga may tontu bul yem ci loolu. tontu ma loolu moom mënu ma ci tontu. mënoo ma ci tontu. ci plan B bi d'accord mën naa la ko nangul. mais ma wax euh, tuuti ci waxtaan bi parce que bi ma wooyee. ni mhm. mën naa ñëw seet si ko mu ñëw wax ma lu mu bëgg a def lu mu bëgg ci élection yi man ko président euh, di lii man d'accord mu ci. Mhm. parce que nit ñi dañu bëgg a wote ji. Sénégal, certes, il y a un état d'esprit généralisé, euh, mais euh, voie bi ñu tracé mooy dem aux mhm. te man choisir na un candidat boo pare te damay wote ji sama parti tam day wote. Mhm. loolu mooy boo voté jiwul tam man damay dem voté ji. waaw way way mhm. parce que xam nga nit ki bu ngeen àndee tam. boo d'accordul da nga naan d'accorduma. loolu mooy àddina. d'accord mais mais bi ñuy discuter. Euh, premier jour bi kenn nekk foofu on est resté au moins quatre heures de temps deuxième jour bi y avait Decroix ak Omar Sarr laaj leen discussion libre ñoom ñu ngi toog rek di seetaan mais am na benn moment sax dafa ma ni waaw Pape waxal ndànk rek dañuy waxtaan. c'est vrai il est loo Ablaye Wade c'est c'est un c'est une personne intelligente. tout mhm. dof. boo ko waxee lu lu lu lu ko mën a convaincre. nga nga am ko mais moom li mu bañ kay ngay wax ay waxu fla fla mais boo ko waxee lu ko mën a convaincre ah mën nga ko convaincre moom moom il n'est pas figé sur ses positions. d'accord président wax nga ma ni fileeg le 24 bon discours am dina changer euh, te dina wax ni ñi ñu dem voter ji. ah man am naa yaakaar ni di di di am naa yaakaar. que dina ko wax dina dina ko wax. teg dina mën na ko nag. te mën na caa yegg ba wax nañu votel sa Seck. xaw ma ku muy wax daal mais mën na mën na wax ni nañu dem voter ji. nañu dem voter ji ku ne votel ku la neex. ah déet nag li muy wax. loolu maandu la xam nga. xam nga loolu. xamaguma loolu li muy wax léegi Pape président dañuy waxtaan man ak yow te ni nga may waxee danga nga xam Abdoulaye Wade buñ ci waxtaan si dafa mu solo yow yaa abordé question boobu yaa ma ni évolué na ci discours am. évolution boobu day dem ba egg ci mu dem leen voté ji dem leen voté boobu nag bu newul ak diw nag bu ma toogul ak moom ba wax ak moom mu ni ma lii laay def du ma ko man évolution boobu ay nit ñoo may rapporté ay fait ak ay wax. mais ba mu jógee France ba tey toogu ak moom. donc du ma mën a avancer wu ni la kii lay woteel wala kii lay woteel. je ne peux pas le dire. d' accord président wax nga ma léegi ni ma am na loo xam ni yow danga koy comprendre ci ful da ngay lire. ful euh, ful bi nga xam ni maanaam mobilisation bi ngay gis. ci wetu yow ak Idrissa lan nga ci jàng. ndam nga ci jàng wala lan nga ci jàng jàng mooy d' abord. Mhm. j'ai vu gis naa ndaw yi. yu bëgg yu aspirer au changement. jeunesse bi gis naa ñu topp ñu sur des dizaines de kilomètres. contrairement à 2011. oui contrairement à 2011. 2000 2012. waaw 2012 ak Abdoulaye Wade. bi ngeen di daanu ah contrairement. 2012 euh, bi Abdoulaye Wade di daanu man bu doon dem du ma ànd ak moom Dakar lay des. Mhm. donc mais gis naa campagne bi ñu defoon Dakar tam c'était pas tellement mobilisateur. Euh, alors en dehors de ça gis naa nit ñi man nit ñi lay xool. gis naa euh, en Casamance. dans les petits villages xaw ma ku leen informé mais tout le monde sort ba dañuy mujj taxaw. kooku c'est important. démb j'ai vu à Bignona des deux côtés nit ñi massé wu ba nga xam ni foule yi pour ñu jàll sax problème la. ñëpp di tàccu di kii ñu xëccoo pour ñëw euh, jigee candidat bi loolu aussi pour man c'est un bon signe c'est un bon signe xam nga boo demee meeting homme politique ngay wax rek war nga percevoir dara ci ci ci ci assistance bi il doit y avoir un dialogue entre l'orateur et le public bu ko amul rek dialogue bi nag ci ci seen réaction lay doon bu ko amul rek xamal réussir ngeen ko. waaw ci seen meeting yi ngeen def yëpp. réussir ngeen ah, dialogue boobu partout où nous sommes passés mani la euh, dañu jógee Bignona euh, ñu ñuy téye ci village yi ñu ngi waroon a egg Médina Yoro Foulah 17h. Mhm. finalement on est allé directement ak Kolda Kolda à 5 kilomètres ba traversé Kolda c'était plein ñu ngi egg Médina Yoro Foulah deux h du matin bi ñuy dem daf ma ni. fii daal suñ fa fekkee cinq personnes rek xam naa ne dinañ gañ ah bon <laughs> oui parce que deux heures du matin ku la waroon recevoir 17 heures on a trouvé une foule avec euh, un enthousiasme débordant kon kon président yéen da ngeen gagné di ngeen gagné ah man de jusqu'à preuve du contraire c'est nous qui gagnons scap def di ko li ma gis parce bu la nee buñ ñu fa fekkee cinq personnes dañuy gagné. ngeen fekk ful ful kon da ngeen di gagné kon. parce que Médina Yoro Foulah mon parti est très fort là-bas ah oui. kon boo ko gis boo ko gis am na fu mu foor kon. ah mais non xam nga. boo ko gis-gis kon am na fu mu fort. xam nga 2012 foofu. Ah. donc parrainage bi mënoon nañu may ñu découvrir loolu kon. oui oui mais mais parrainage bi mais Pape Ngagne parrainage bi. <laughs> d' accord nañu nañu nañu demaat rek ci bokk gis-gis 2012. Euh, non du sax 2014. de ok 2014 voilà. 2014. Mhm. le PDS avait gagné deux mairies là-bas ñun benn. Mhm. mais au plan du département si liste départementale bi ñun ñoo raw lu bëri. Mhm. Et nous, on a maintenu, no troupes sont toujours là-bas, elles ont grande Euh, alors. mais nag bari nañu ci génn fii ci Pikine rek sa coordonnateur yi fi nekkoon. mais eh, oh. <laughs> ñooñu ñooñu dem nañu. <laughs> nga dem Touba la même chose. benn nit bu dem mais xoolal benn bu dem. xoolal non je vais t'expliquer. mais nag aussi politique la ñuy wax. xam nga ni boo mënee benn nit bu dem te ñuy wax politique nag regretté ko aussi moo gën. waa waaw mais xam nga xam nga boo àndee nit bu choisiree dem mënoo ci dara dafay dem. mais au moins boo gisee déclaration boobu nga war a gisaat déclaration hier bi nga xam ni euh, Pikine def nañ ko tous les seize coordonnateurs toog ñu def conférence de presse. Mm-hmm. alors donc loolu aussi da nga koy wax Touba ki ngay wax du ma ko tudd. Mm-hmm. xam nga def ni mooy responsable des femmes mais responsable des femmes boo xam ni mosoo nekk ci benn liste. liste 2017 yaa ngi fi député yi amoon ay député amoon na listu am na jigéen sax yu nekk député bokk gis-gis am na ñeneen yu nekk ci yi te nekku ci. xam nga kooku sax n'a pas de sens. <laughs> boo nekkee responsable des femmes d'accord léegi daal président kon jàpp ngeen ni da ngeen di gagné ci argument bi foofu ngeen ko teg. waa bu bu ñu yàlla mayee jàmm daal ñu ngi ñaan mu may ñu victoire. Mhm. te am ngeen ci yaakaar bu baax. bu baax a baax am waaw marché orange bi dafa ëpp meeting yi problème de moyens financiers la wala lan la. wala stratégie la non non non c'est plus pratique parce que xam nga euh, marche bi euh, tu atteins beaucoup plus de gens wax naa la jóge nañu euh, comment dirais-je Vélingara on a fait tous les villages là Diaobé euh, Fële Kabendou dem ba tous les villages def nañ ko bu doon meeting doo a am ñooñu ñëpp ñu ci bari say militants rek ngay rassembler mhm. kon du problème du finance. ah non non non non non pas du tout pas du tout pas du tout. ay problème mooy yéen du seen problème. pas du tout pas du tout. yéen a ngi yéen a ngi. en tout cas ñi ngi déroulé li ñu war a ci biir campagne bi te yàlla mi ngi ñuy dimbali nit ñaa ngi euh, ànd ak ñun. wax nga ma loo xam ne lu am solo la ci programme bi ni nga ko waxee ci justice loolu moom yaakaar naa ñu bëri dañ ciy adhéré parce que ku déglu li nga wax ci conseil euh, de la magistrature suprême loolu nga wax noonu dafa am solo loolu wax dëgg yàlla bu amee indépendance mën nañu njort justice boo xam ne loolu moom bu amee yaakaar naa dina dalal xelu ñu bëri waaye li nga xam ne nag moom la gis mooy candidat yi seen programme ak seen discours mais une fois ñu toog ci ci ci ci ci euh, war ko doxal mën nañu gis leneen Euh, mën nañ jàpp ni xëy assure que Idriss Seck a beaucoup gagné en maturité. Ah bon oui. on peut Quand... dire qu'il est devenu mature. <laughs> loolu de loolu ça veut tout dire. bu ñu ko amee comme président du mel ni yenn président yi ah. mais ki mature bu yàggul est-ce que loolu wóor na. li ngay wax non il a. mature bu yàggul dama waxuma la ni bu yàggul la mais. <laughs> il a traversé depuis 2014 2004 là ba nëgëni. il a beaucoup gagné. mais loolu léegi nag ki mature nag dañuy bàyyi ki mature ki mature bu yàggul di jël ki ki ki nga xam dafa mature bu yàgg nag. kan moo mature bu yàgg. ah mën nañu jàpp ni président Sall. ah non pas du tout pas du tout. xam nga euh, même <laughs> ces discours dans la dans la campagne montrent qu'il a un esprit puéril. jusqu'à présent xam nga sooy dem naan dama leen di jox euh, dama leen di zarax 10 pour cent xaw ma lan asaka. si si ça mais quand même mais xam nga am na yoo xam ni un président ne le dit pas peut-être un autre candidat aurait pu le dire ñu ñu ñu ñu ñu ñu pardonné ko ko. Ah, président bul te nag ci campagne la ñu nekk nag. waaw même bu ñu nekkee ci campagne. campagne nag il faut nag ñi nga xam ni ñoom ñooy si ay militants daw ñëw il faut nga wax leen luy dalal seen xel. liy dalal seen xel mooy li ngay war a def. ak li nga leen bëggal mooy dalal seen xel mais loolu dalalul xelu kenn. d'accord na ci sax ay mots yoo xam jaru ko woon bu bu ko Idriss Seck waxoon tam ma ni ko jaru ko waroo ko def parce que campagne du loolu campagne wax c'est c'est c'est la rencontre de homme avec son peuple wax la li nga bëgg a defal réew mi ñoom itam ñu xam fi nga bëgg a jëmee réew mi ñu jàppale la wala ñu bañ la jàppale. mais yenn yi jaru ko. jaru ko président def nga tuuru dëkk bi campagne bi permetre na la ko li ñuy wax ci PUDC. forage yi <laughs> eh, piste yi ak yooyu. Eh, xam nga waaw piste yi moom mën naa ci wax mais forage mënuma ci wax parce que wax dëgg yàlla demuma ci fi ñu def forage te demuma fenn aussi ñu wax ma xam naa ni y' y' des forages yu ñu def mais bu ma demul man ba gis. wala ma compter leen. mais yow yaa demul fenn wala kon ñoom ñoo deful benn fenn. Ah, forage ah déedéet dem naa. soo nee ma fi nga dem yëpp demul ñu fu am ay ay forage waaye Sénégal dafa yàgg am forage nag te du PUDC loolu la. dafa yàgg am te du de PUDC mais euh, jaar nañu benn yoon démb rek moo <laughs> xam ni PUDC la mais je vous assure yow xam nga xam nga Sénégal yàgg nga ci jaar ci piste latéritique mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dina am poussière certes mais poussière bi jóg ba dañuy bëgg a accidenté ñëpp dañuy freiné taxaw kenn du gis sa morom parce euh, piste latéritique dafa am ay normes dañ ko war a def ak ay engins di ko arrosé di ko compacter di ko compacter ba mu ba mu dëgër nga xam ni poussière bi ci kaw rek lay nekk day naaw. Mhm. mais fekkee ni dañu tuur latérite bi rek maasale. Mhm. mais je vous ai boo rombee euh, toiture kër yi zeng yi dootul feeñ day xonq kooku xam nga wax di yàlla. waxuma ni le projet en lui-même ne pas bon mais l'exécution de la tâche vraiment ça laisse à désirer. am ngeen ci programme. waaw ci àll bi lan ngeen ci am comme programme alternative ci loolu nga xam ne gis nga ko muy piste yi ak ni ngeen di gisuloo ay forage aussi lan mooy ci seen. non waxuma loolu. waxuma ni gisuma ko dama ni xam nga. Euh, pas demandé ba xam fii PUDC def na fi forage wala fii moo ko defoon noté ko ci benn département dinaa la wax. Mhm. vraiment loolu defuma du ma wax loo xam ni ci politique man duma ci wax loo xam ni. gisuma ko. ok voilà président mais àll bi liñ ci war a def dafa bari. ok il faut l' agriculture là il faut une autre agriculture. Mhm. parce que. Euh, est ce que dina yomb nga def programme bu gën ñoom bi ñu def. parce que bientôt xam nga ni ñu ñu jege autosuffisance ci lépp nag. est ce que yomb na nga mën a teg programme bu gën seen programme. xam nga tey gis na benn. affiche ñu def ci je vote Macky Sall parce qu'il a parce qu'il a réalisé l'autosuffisance en riz mm -hmm. mais man il y a six mois quand j'ai fait des vérifications on importe toujours le même tonnage de riz que l'on importait avant il y a six mois j'ai les chiffres mhm. alors si on me dit maintenant qu'on a qu'on a a l'autosuffisance mhm. jafe ci man pour ma comprendre ko mhm. alors àll bi je crois que àll bi mënuñu ko régler tant que amuñu agriculture boo xam ni danañ liggéey deux saisons ñëpp laa wax. noor ak nawet. maanaam noor ak nawet gën a jox gëdd mbéyum dër bi. li ñu wax basé sur la maîtrise de l'eau du mhm. mbéyum dër seulement. Mhm. il faut identifier tous les produits agricoles. Mhm. que nous importons. li ci ëpp mën nañ ko def fii. parce que man am na expérimentation yu ma def yu bari. dans le blé kooku ab Ablaye Wade. mais loolu lañ bëgg a def ak dag yi ak Prodac non. public ba def ko. Mhm. wax ko. Mhm. blé bi ma ko expérimenté fii c' était en euh, euh, mhm. deux mille sept ou deux mille huit. deux mille sept ou alors euh, loolu du mbayum dër rek parce que li ñu mën a def bari na. bari na loolu nag il faut que ñu encadrer le monde rural. Euh, orienter leen sur euh, euh, les productions parce que mhm. ñëpp mënuñu produire la même chose mhm. ñëpp mënuñu produire la même chose mais il faut également favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises mhm. dans le monde rural parce que li ñuy bay loolu il faut qu'on aille vers la transformation la labellisation l'emballage d'abord l'emballage mooy mooy industrie bi président Macky Sall di aussi industrialisé <laughs> mooy li muy wax est-ce que du ngeen di programme am aussi président li may wax day wax dëgg yàlla boo ma dégloo dinaa la wax xam nga ma la petite et moyenne entreprise laa wax mm-hmm. waxuma la industrialisé man mm-hmm. parce que les États-Unis États-Unis dañu développé wu à mm-hmm. partir de la petite et moyenne entreprise les grandes industries on n'a pas de chance parce que nous avons beaucoup de concurrence et la Chine l'Asie arrive bal ma nga wax olof président xam nga ma ni mhm. industrie yu yu yu mag yi amuñu chance gis nga toutes les grandes industries yi fi nekkoon yi daan defar ay tuseeg yooyu Chine ñëw yàq la mhm. mais am na foo xam ni euh, kenn mënuñu concurrencer mhm. parce que li nga xam ni ñun ñoo koy bay di ko defaral suñu bopp hein di ko transformer di ko emballé labelliser ko hmm. man ko jaayi fu nekk dans le monde. mais loolu loolu la proposé aussi vraiment ci ah. industriel ci industrialisé. mosu bis bilaay walaay talaay mosuma dégg. waaw kon wax na ko pour nga xam ne aussi loolu. man ba ma ko dalee wax waxu ko. kon d' léegi président ci leneen lu ma ñëw wax nga yéene ci àll bi mais nag euh, wax nga ni ku xam politique nga wax nga euh, mouvement de foule wax nga mobilisation ni nga koy jàngee mais coalition aussi war nga ko jàng ku xool seen coalition bi ay tur dëgg ñi ngi ci. c'est vrai ay ay Abdoul ay Pape Diop ay nangam nangam mais ku ne xam na ni itam am na baromètre mooy élection résultat yi ak euh, pourcentage yi nga xam ni mën ngeen ko am est-ce que yaakaar ngeen ni mën na leen jox ndam bu ngeen sukkandikoo ci tur yi rek. ay diw diw ci tur man waxuma la tur. non man maay laaj rek parce que coalition bi aussi c'est vrai gis nañ tur yi. parfois nga ne diw nga fa diw ànd naa ak moom. xam nga élection présidentielle. waaw ah. c'est pas l'affaire de d'une coalition c'est pas l'affaire de grand non. ok loolu am na solo dégg nga li ma wax ma ni la kooku nit la ak peuple bi. Mhm. moom ñeneen ñi dañuy gunge rek. dañuy gunge. ok moom nag mooy wax li tax ñu wateel ko. te comme mi ngi soog a mature am nga ci yaakaar. wa non mais waxuma la mi ngi soog a mature je n'ai jamais dit ça j'ai dit qu'il a gagné gañe qu'il en maturité. waaw ah beaucoup. Mhm. waaw waxuma la mi ngi soog mature. non mhm. jamais. alors euh, du tere ñi ànd ak moom mais kenn ku nekk da nga yor parti eh li nga am fenn fu nekk ñooñu ànd ak moom ànd ak parce que on a eu la chance. mais du automatique de nga bàyyi ko xel aussi. du ñu nga ànd dañuy xam nga xam nga nga ni loolu bari nañ ci luñ ci mën a joxe ci ay exemple mënta automatique. waaw mais xam nga. waaw. loolu Pape Diop du ne votel leen Idrissa rek ñëpp votel Idrissa. loolu mënul ñàkk waaw. mais su ma waxee wootee leen Idrissa quatre-vingt-quinze pour cent wootee wootee wooteel Idrissa mais kooku les cinq pour cent sont négligeables quand même alors donc loolu mënul ñàkk mais pendant ce temps euh, am na ñu jóge feneen ñëw ñëw ci ñun te te waxuñu waxuñu taluñu ko sax demain je reçois des gens du département de Kaolack seize responsables de communes seize responsables de commune demain. Mhm. alors waxuñu ko. loolu moom loolu am na solo. donc xool nga fi ñu jaar li ma fàttee wax mooy. Mhm. Euh, bi ñu jógee Kolda à Kolda on a eu beaucoup de ralliements mais entre Kolda e Sédhiou d'ailleurs la presse en a euh, tey la doon jaar euh, Goudomp. mais Goudomp déjà ils sont venus à Kolda pour faire le ralliement à, à, du moins à, à Sédhiou xam naa ne tey Goudomp dinañ fa def loo xam ni parce que y a tous les maires tous les trucs et autres yoo xam ni def nañ seen ralliement loolu aussi lu am solo la donc fu ñu dem ralliement yi moo daf ci am solo mais euh, en général médiatiser wuñ ko sax ñu ngi ko door a médiatiser fële parce que foofu meeting la woon ñu jël parole ñoom. d'accord ñu jël parole. kenn sax moo ci naroon jël parole man maa ni no comme c'est plusieurs maires ils n'ont qu'à chacun prendre la parole ñu xam mais boo nee benn kenn rek moo représenter tous les maires là c'est un peu confus. man maa wax mais xam nga ni ci politique la ñu nekk aussi xam nga xam nga ni tey mën nga wax maa ngi fii suba maa ngi fële. loolu gis nga ko gis naa ko gis naa ko waaye nag <laughs> ñooñu am nañu détermination boo xam ni parce que kenn ku ci nekk wax nga li tax nga choisir ce camp là mhm. kenn ku ne wax nga ni le camp du pouvoir euh, sollicité na leen mais fii la ñu bëgg a dem d'accord mais président man daal nit ki d'accord euh, lim ma wax mhm. laay jàpp d'accord bu ma gisee nag mu deñ Mhm. beneen yoon mënatuma wax lu mu d'accord président am na ñuy wax présidentielle 2019 yi pour Idrissa Seck président ou jamais maanaam bu ko nekkul jeex na ndax loolu mën ngeen ko bokk yéen itam maanaam buy génn ci politique ngeen àndandoo ndax âge bi ak euh, lépp <laughs> juste damay laaj rek. <laughs> yaakaar naa ne daal loolu moom mu ngi ci loxo yàlla. Mhm. Euh, politique moom euh, du jeex ci nit. d'accord Abdoulaye Wade da ngeen di ba tey mi ngi politique. loolu rek laa laa la mën a tontu foofu. d' accord jërëjëf président Pape Diop ma bàyyi la pour quelques minutes bu fekkee am nga message booy jagleel ñi nga xam ni ñooy téléspectateurs yi. oui li ma leen di jagleel mooy ñu garder le calme. ci élection ci campagne bi li ci des wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñu def ko du ci am gaañante du am xeex du am xuloo mais caravane yi mën nañu rombante nuyonte tàllalante loxo te mën nañ oto yi sax taxaw oto leader yi waxante lu rafet. loolu tam mooy mooy tax ñi ci suuf duñu duñu kii euh, tout dépend des leaders. Mm-hmm. ñoom ñoo war a joxe la bon exemple ni ma ko waxee ci Macky Sall noonu laa koy waxee ci candidat yi. Mm-hmm. ñoom ñëpp ku ci nekk yaa war a joxe le bon exemple bu ko defee rek troupe yi ci suuf duñu xeex waaye bu ñu wonee boo wonee benn animosité bi sa diggante keneen ah c'est vrai que bu ñu tasee ñu am tendance su euh, euh, def loo xam ni danga ci bépp te fekk na ñu ngi lay yàqal. Mhm. parce que ñi gaa ñi ci ñàkk seen bakkan wax dëgg yàlla loolu metti la surtout ay xale. Euh, loolu nekk na loo xam daal maa ngi invité tout le monde di ci jiital président Macky Sall mu wax ak waa këram candidats yi ci des tam kenn ku ci nekk wax ak say militant ah ñu garder le calme. Mm-hmm. ba ñu dem ci élection yi ak jàmm génn ci ak jàmm. Mm-hmm. parce que àddina jeexagul. Mm-hmm. nañu xam loolu. yàlla lu mu tudd mooy am. donc euh, nañu nañu nañu gëm yàlla. d'accord. Euh, te def li ñu war a def. d'accord sonn. Mhm. li ñu yàlla sant ci looy wut. Mhm. nga sonn ci. Mhm. bu ko defee moom mu ñëw nag. comme jàppale def nga sa message naa def laaj bu mujj rek yàlla lu mu tudd mooy am ndax bu ñu eggee ci soiru 24 février bu Macky Sall gagné yàgg sa leader di ngeen ko félicité. oui mais xam nga euh, loolu en politique résultat yi bu fekkee ni vraiment gis nañu lu leer a leer mu gagné lu leer a leer amul dara loo xam ni lënt na. wax dëgg yàlla. war nañ ko féliciter waaye nag bu leerul d'accord loolu du am jërëjëf mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce télévision Futur Média ñu tey ñu amoon mbégte bu bu yaatu moom président xam na ko ci eh, am mbégte bu ñuy am di ko recevoir eh, ku nekk gis na itam cër bi nga xam ni jox na ko waxtaan bi waaye ñun ñoo gën a mën a xam sax cër bi nga xam ni jox nañu ko ba wuy si eh, lii di émission bi ak télévision Futur Média yaakaar naa ne biñ ko ko waxee matuwaay yi mu jël ngir ñëw loolu moom xam nañ ko loolu ñu ngi koy apprécier sa juste valeur di ko ci gërëm bu baax te xam ni naam xëy na ñun la ko defal waaye itam Sénégal yëpp la ko defal ndax euh, waxtaan ak Sénégal dafa am solo ci tolluwaay réew mi fi ñu toll li mu wax ci violence bi aussi am solo euh, mu jagleel ko leaderam jagleel ko président Sall jagleel ko yeneen candidats yi ngir ñu ànd ak dal xam ni élection yi yàggul te lépp itam Sénégal la képp ku mën a gagné Sénégal ngay jiite euh, képp koo xam ni gagné itam ki gagné moo lay jiite fii ci Sénégal kon dañ ko war a mën a rafetal ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen émission bu ci yàlla andee jërë ngeen yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fole